aalihi xaqa xadrihi wa miqdaarihi al-azim mbokk taalibe yi mbokk am di jàmm suñuy soppe suñuy xarit ak képp ku ñu suivre ci chaîne YouTube bii di Mystique 5995 TV di wax man seen mbokk taalibe seen xarit sëñ Abdoulahi Ndiaye maa fas yéene ñëw ak yéen ñu wéyal waxtaan jëm ci asmaul barxatiya mu di 28 leer non suryaan yi nga xamante ne maanaam ay tur yu baati na leen yu am njëriñ lool macha allah léegi nag li ma fas yéene doxee nag mooy. Euh, xam naa ni comme ni ma ko waxee tour bu ci nekk rek dañ leen defal présentation daa di laaj forme daa di laal ci forme bi mais fond bi duñ ko laal parce que dafa am loo xam ne kenn mënu ko jàngale ci internet mënoo ko jàngale ba jàngale bi mat te loo ci jàngale tamit bu xóotee yenn xoot yi ñun ñu koy jëfandikoo bu fekkente ne dem ñu gëstu ca lañ ca war a gëstu te am ci digal mun nañ cee lool moo tax damay laal rek fu nekk danaa fa cof la cay njëriñ wax leen présentation tour yi su ko defee ñu jàll ci leneen ba keroog 28 tur yi di mat ci yàlla àndee saa buñ defee tur nag maanaam waxtaan ci benn tour beneen jour ba dañ ciy tegtal beneen vidéo boo xam ne dañ ciy waxtaani secret boo xam ne dañ koy may gratuit noonu lañ koy juyalantee maanaam tey bu ñu dugalee tour waxtaan ci asmaul barhatiya beneen jour dañuy dugal boo xam boo xam ne dañ koy maye wala kayfiya boo xam ne dañ koy maye ngir yéen ñi ñuy seetaan ngeen mën ci jëriñu asmaul barhatiya nag noonu lañ koy toppalantee tey asmaul barhatiya suba kayfiya tey asmaul barhatiya suba kayfiya ba keroog mbir mi di yegg su ko defee ñëpp gën a mën a jëriñu incha allah bi suñ jugee foofu bëgg nañ ñëw ci musalasu batadun zax ji waaxun muy musalas asatul Ghazali waaye bu boobaa nag ci batadun sax ji waaxoon bi kese la ñuy yem présenté leen musalas bi ni muy tëroo ak luy jëmukaay bi ak fu mu soqee ko suñ paree nag daal di leen wax yenn njëriñ ci batadun sax ji waaxoon ndax batadun sax ji waaxoon kese day faj xaajo ci ñi nga xam ne xam nañ ko lu jëm nag ci siru musalasu Ghazali ak ñu koy tëggee xaatim bi nu ñu koy daggee yooyu duñ ci yegg parce que loolu du jàngum YouTube te benn bi tamit mooy même bu doon jàngum YouTube wala internet suñ jot may ñu pour ñu toog di ko détailler sirru musallas Ghazali tamit dafa am dafa am secret yoo xamante ne képp ku bëgg a am ijaaba ci musallasatul Ghazali wala nga bëgg ko jëriñoo ci zaahir ak ci baatin dafa am secret yoo xam ne danga koy xam te secret yooyu bokk na ci asmaal barhatiye bii may waxtaane junjoon naa ko bokk na ci sirru Ghazali ci lu koy gaawal ci lu koy maye ijaaba ak lu mel ni ay xin bactérialin jalisin junjoon naa ko waaye lu ci mel ni alhamdulillahi fattaahu razaqu muy 945 ci sirru Ghazali la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne duñ ci duñ ko mën a xóotal carrément waaye yooyu yëpp junj la rek boo leen ñu toppee ci chaîne YouTube bi di wax ne ñi abonné gul leen ñi abonné ba pare dee leen activer cloche notification bi su ko defee vidéo buñ dugal ngeen mën ci jot te boo leen jotee ci vidéo yi ngeen lay waaye dee ko suivre di ko seetaan boo leen ko seetaanee tamit dee leen koy partager ngir ñi ci jotagul mën cee jot mu nekk njëriñ ci ñëpp ndax lu baax dañ koy yaatal comme ni ñun ñu ngi koy defee temps bi ñuy jël di ko bàyyi di leen ci leeral mënoon nañ cee bañ a fekk connexion bi kenn jëndaluñu ko wax dëgg fa la xam-xam bi tamit forñu ko dañ koo jàng ba sonn ci pour mën koo am kon nag war ngeen ci mën a jàpp yéen ñi ñu koy baaxee ngeen yaatal ko su ko defee nag li ñuy njëkk a ñëwee muy asmaal barxatiya muy tur bi di barxatiihin barxatiihin nag booy seet asmaal barxatiya 28 lettres lañ 28 noms suryaan lañ yoo xam ne maanaam ñoom ñooy asmaul barxatiya mais 28 noms suryaan yooyu dañoo am correspondance ak 28 lettres alphabet arabe ndax ñëpp xam nañ ne. xurufu abajada yi vingt huit lettres lañu léegi nag asmaal barxatiya tur bu ci nekk am nga lettre boo xam ne moom nga représenté tur bi jiitu ci asmaal barxatiya mooy barxatihin moom barxatihin moom moo représenté lettre bii ñu naan alif bii ñu naan alif moom barxatihin moom moo ko représenté waaw boo jugee nag ci euh, représenté bi mu représenté lettre alif moom as euh, tur bii di barxatihin booy seet dafa am correspondance ci asmaulaay xusna ndax tur bër asmaal barxatiya yépp bu ci nekk am na tur boo xam ne moom nga am maanaa maanaam moom nga représenté ci asmaawulaay xusna muy 99 tur yàlla yi ñu xam léegi nag boo jëlee nag tur bii di barxatihin moom correspondance am ci asmaawulaay xusna moo ngi nekk xudduus ba tey tamit am na ñu naan subbuuxun waaye xudduusun subbuuxun yépp booy seet barxatihin di représenté maanaam barxatihin yow mi bëgg a xam ban tur la war a mën a taxaw ci asmaawulaay xusna boo xam ne mun mun na koo am maanaa maanaam mun na ko représenté moo la muy jëriñ moom tamit da koy taxawee muy xudduusu subbuuxun kon baraxatiihim ci tënk jàpp leen ne moom taxaw na ginnaaw ba mu taxawee représenté lettre alphabet arabe bii di alif moom taxawaat na ci tuur yàlla bii di xudduusu su booxum waaw muy xudduusu su booxum ñoom ñaar ñëpp baraxatiihim lañ booy boo doon wax tey maanaam bi ngi mel ni boo waxee subuuxun xudduusun mi ngi mel ni wax nga baraxatiihim boo waxee baraxatiihim mi ngi mel ni wax nga subuuxun xudduusun su loolu wéyee nag inchaa allah su loolu wëyee nag ci xud subuuxun xuduusun maa ngi dégg nag ñu ma naan sa baat bi dafa suufe aw ma moo tax parce que boobu léegi aw ma jot pour dem di wëri ay micro yooyu yéen ñi naan ma sa baat bi dafa suufe jënd leen micro ngeen jox ma ko comme li may wax intéressé na leen rek wut leen micro ngeen jox ma ko comme ça baat bi kawe dégg ngeen waaw loolu <laughs> am na ci solo waaw ngeen jàpp ci liggéey bi comme yéen yéen intéressé na leen ngeen ci barkeelu ci liggéey bi su ko defee incha allah ngeen wut ko jox ñu ko rek <laughs> dana tax mbir yi gën a dox waaw bu loolu wëyee nag moom waaw moom mii di as euh, barxatihin nag tur la woo xam ne tur wu gaaw ci risque la maanaam kayfiya bi mu leen ciy may mooy tur la woo xam ne tur wu gaaw la ci risque ci wàllum maye alal loolu nag ku ci bëgg alal ju gaaw ci 41 jours wala 40 jours gën gi néew 40 jours waaye 41 jours incha allah rabbi mooy tarbiya bu mag bi da ngay fexe di liggéey tur bii di barxatihin waaye nag boo koy liggéey par doublon nga koy liggéey liggéey par doublon mooy danga naan barxatihin barxatihin nga wàcce benn per. maanaam ñoom soo leen di liggéey bëgg mu gaaw par doublon nga leen di sikkare maanaam tur bi au nga wax ko yoon da koy a wàcce benn per soo ne barxatihin nga wàcce benn per barxatihin per noonu ngay def noonu liggéey léegi nag lim biñ leen ci jox mooy limu téeméer képp koo xam ne saxoo nga diiru 41 jours ngay zikkar tur bii di barxatihin téeméer yoon bis bu nekk maanaam nga ne barxatihin barxatihin wàcce benn per bu muy téeméer lépp luy xeetu alal ak wërsëg da te waxuma la loolu sax waaye day xëcc rawaan li tax asmaul barxatiya nag ma ciy artu ñu bari ñu may suivre di ma déglu mooy tur la woo xam ne ni mu gaawee ci wërsëg ak faj xaaju ak taaraange ma noonu la gaawee ci xëcc jinne ak rawaan moo tax nag tur woo xam ne balaa kaa kenn di jëfandikoo maa ngi ci alerte ñëpp na nga ci am ndigal benn na nga jëfandikoo xijaab ñaar na nga génne sarax ñett te xam li nga ciy lim bi nga ciy wirt maanaam isni bi na nga ci am ndigal lu ko may bu fekkente ne dégg nga ni ñu ko waxee nga zikkaree ko noonu la ci fekk yaa ko teg sa bopp loolu leeral la kon na ngeen tey ci asmaawul suryaan bii di barha ak yeneen asmaaw yépp nag yi nga xamante ne xam ngeen leen ba ci asmaaw laay xus na loolu ñu ci jëfandikoo na am na laaj na fekk ngeen am ci xam-xam gu mat sëkk moom nag képp ku ci bëgg ubbeeku rek ci fatxu ci wàllu zaahir ak baatin nag da nga koy zikkar téeméeri yoon saxoo ko ba muy 41 jours incha allahu rabbi lii képp ko def da nga ubbeeku ci wàllum xeetu alal yépp ak mboolem xeetu wërsëg woo xamante ne yaa ngi koy sàkku moom nag tur bii di barxatihi ni ma moo ngi nekk 622 mooy poids mystique am waaye 622 li ci garaaw mooy maanaam dafa taxawaat dafa amaat beneen baatin bu ci laxasu parce que su ma juumutee ku jël asrafilu asrafilu muy malakal euh, malaayka bii di asrafilu su ma juumutee limam nekk na 622 kon dèjà loolu doy waar waaye ku jël wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi su mu jumtee moom tamit lii li mam 622 la waaw kon nag tur wi fi mu taxaw dafa garaaw kon tur wu mën a not la mën a tasxiir looloo tax nag tur wi ñu wàññeeku ne képp koo xam ne yaa ngi jëflanteek ay kilifa wala ngay jëfanteeg ay buur wala ngay jëflanteeg ñoo xam ne ay boromi daraja la ba ci xattaa président de la république tur wi kiiraay lay doon ci yow maanaam boo koy jëfandikoo di ko wird day tax bu ñu la gisee dañuy am complexe yow te dañ lay wekk dañ lay jox cër waaye duñ na mën a jaar fenn duñ la mën a yàqal waaye ay buur da nga ci mucc maanaam képp koo xam ne borom alal wala borom daraja wala borom doole la bëggee jaay doole wala mu bëgg la lor wala mu bëgg la tëj wala yaa ngi jëfandikoo tur wi di barhatihin fii ak yaa ngi jëfandikoo tur wi lépp loo bëgg si ñoom day yomb kon tur la woo xam ne bu baax la ci maanaam képp koo xam ne da ngay jaxasoog ay boromi daraja wala ay kilifa te tour bu mën xëc ci kilifa la tour wi tamit képp ko xam xey nga suba teel sa pom bi ni sa loxo bi sa tink lox bi nga bind tour bi nga bind ko ci 7 fois nga mar ko ci suba teel bi fekk lek go nana go dara bis bobu amal yaqin ne karange am nga ko manam lepp luy lor wala luy yàqalaate ci zaahira ci batin incha allah rabbi yalla dana la si musal lépp luy lor rek yalla dana ci musal mo xam accident la mo xam lak la mo xam agression la lepp incha allah rabbi yalla dana ci musal ci kàttanu yalla Eh, tur wi nak mom amna tarbiya bopam waye tarbiya bopam du ma ci dugg parce que lolu mbir waxtan souf la mom yo xamne mom ne du ma ko waxtaan ci kaw mom nak tur wo gis ci asmaul barxatiya am na bu muy bu muy andal mu diko doxal wala mu and ak malaika bo xamanteni mom lay doxal da xamna tur yoo xam au lieu de rawan malaika ci bopam mo len di servir te lolu buñ ko waxee yanuna mana parce que bo jëlee tur yalla bi di jaamexu mom ay malaika ñokoy servir manam malaika yi nga xamne ne ñoo tënk àdduna bi teunk lepp ñom ñoy servir ndax loolu benn parenthèse la boo seetee seetee jaamixu ñeenti xaraf la ñeenti xarafam yooyu ba tey dañoo taxaw ci ñeenti rawaan yoo xamante ni seen tur yëpp génn na ci biir jaamixu ndax boo jëlee jiim bi mooy jibriilu boo jëlee alif bi mooy asrafilu boo jëlee miim bi mooy mikaayilu boo jëlee ayin bi mooy asrailu kon jaamixu ñeenti malayka yi ñoo koy servir ñoom xam nga malayka moo ëpp doole rawaan waaye rawaan dérivé la ci malayka léegi nag dafa am tur yàlla yoo xamante ne ñoom rawaan ñoo leen di servir am tur yoo xamante ne ay malaayka ñoo leen di servir mais nag tur yàlla boo mënti jël am na malaayka yu fa taxaw am na rawaan yu fa taxaw am na xudaam yu fa taxaw loolu présentation générale mais dafa am tur yoo xam ne seen doole dafa gaaw gaaw goo xamante ne ñoom daanaka rek bu ñuy xëcc dañuy xëcc malaayka direct nga xamante ne day nekk seen serviteur moom nag booy seet euh, kii bi muy àndal malaayka bi muy àndal moo ngi nekk Jabraayil moom mooy maanaam malaayka bi nga xamante ne moom mooy servir tur ndax tur la woo xamante ne maanaam doole ji fu ko waay natt weesu na ko wax dëgg fa yàlla tuur la wu ama ama ama ama ama ama am doole moom booy def tau ci tur bi maanaam di ko jëfandikoo bëgg mu gaaw malayka bii di jibriilu bu dee ci yenn téere yi jabraa iilu la ñuy bind waaye jibriilu la moom ngay woo jëfandikoo ko pour mu gaawal la say mbir am na nag tarbiya boppam boo xamante ne ku ko def ci juróom-ñaari fan gën gi yéex tur wi ci boppam rawaan yi ak xuddaam yëpp dañ lay wuy si waaye loolu yeneen mbir la duñ ci sori su ko defee nag def résumé ci en français pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger euh, nous étions en train de vous expliquer le nom divin Barhatihin qui est le premier nom parmi les noms 28 noms souriants le nom Barhatihin représente la lettre Alif le nom Barhatihin a pour poids mystique 622 qui est égal au verset coranique mais qui est aussi égal au à l'âge Asrafil nom Barhadihin est un nom très puissant. Le nom Barhadihin est un nom très puissant. Ce premier nom-là est très puissant en ce qui concerne l'attirance des bienfaits de, ce monde d'ici-bas. C'est un nom qui attire beaucoup les risques et c'est un nom aussi qui vous permet d'avoir des relations parmi les grands, c'est-à-dire les présidents, les ministres, ceux qui ont des autorités, etc. etc. Mais c'est un nom aussi qui vous protège, qui vous protège des, des dangers qui vous guettent de partout, que ça soit concernant les êtres humains ou parmi les djinns. Maintenant, le nom divin Barhatihin, pour celui qui veut l'ouverture totale sur son nom divin, il n'a qu'à zikrer le nom divin 100 fois durant 41 jours. C'est un tarbiya qui permet d'avoir le fatwa, c'est-à-dire l'ouverture totale sur son nom divin. Il faut le zikrer, 41, euh, il faut le zikrer durant 41 jours au nombre de 100 fois. Mais en zikra, il faut doubler le nom c'est-à-dire il faut dire barhatihin barhatihin pour, pour euh, faire descendre une perle. Ce nom se zikr par doublon. Pour avoir l'istijaba, il faut zikr le nom par doublon, c'est-à-dire dire barhatihin barhatihin pour, pour, pour, une perle, barhatihin barhatihin pour ensuite baisser une autre perle. Ça facilite l'istijaba sur son nom divin. C'est un nom aussi qui facilite beaucoup les relations, mais aussi qui protège contre les autorités c'est un nom aussi que si vous vous levez le matin, très tôt le matin, et vous prenez la de votre main, vous écrivez ce dos d'hiver sept fois, et vous, vous, léchez ça jusqu'à ce que les, écritures euh, s'effacent. Vous aurez une protection durant cette journée contre tout malheur, contre tout danger, contre tout risque, mais contre toute nuisance. Vous serez protégé contre les Celui qui fait ça chaque matin, qui écrit le nom sur la pomme de, son, de sa main, cette fois et qui lèche ça, protection. Maintenant, c'est un nom qui comporte beaucoup aussi de danse. pour celui qui n'a pas l'isne et qui ne connaît pas, qui n'a pas une connaissance approfondie concernant ce nom divin. Donc nous allons, nous allons nous limiter là pour l'explication concernant le nom divin paradis. Et il a pour serviteur l'ange Djibril, parce que c'est un nom très puissant. Il y a d'autres anges qui le, servent, mais l'ange Djibril fait partie de ses serviteurs chaque nom divin, a son serviteur parmi les anges ou parmi les rohan ou parmi les khuda. Et il faut une connaissance aussi assez approfondie pour utiliser ces noms divins-là, parce que ce sont des noms très rapides mais très dangereux aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, nous allons nous limiter là pour la présentation du nom divin Barhatihin, qui est le premier nom parmi les noms souriants, les 28 noms souriants. Inch'Allah, nous passerons au nom Inch'Allah, pour la prochaine fois et eh, abonnez-vous et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.